éliminatoire CAN 2025 Sénégal doon jongante ak équipe bi di Burkina Faso les Lions de la terrainga se son imposés sur le score de 1 but à 0 le Sénégal bat le Burkina et confirme son leadership dans le groupe L donc déjà qualifié pour la CAN 2025 Sénégal confirmé na waat sa domination en battant le Burkina Faso 1 but à 0 lors de la cinquième journée des éliminatoires au Mali ki nga xamante ne moom mooy Habib Diarra nekk millier de terrain et capitaine capitaine au sein du Strasbourg, Momo délivré les Lions de la Teranga en marquant sur une très belle frappe à la 83e minute de jeu. De quoi faire exulter les supporters sénégalais venus en masse au stade du 26 mars de Bamako. Donc le nouveau sélectionneur Pape Thiaw jot na tirer le meilleur de ses joueurs la résistance solide des étalons. Victoire bi nag day conforter la position du Sénégal en tête du groupe L la nouvelle direction de l'entraîneur intérimaire ki nga xamante ne moom mooy euh, Pape Bouna caw euh, depuis le départ de Aliou Cissé donc mu nekk yi tamit une victoire qui fait du bien au Lion de la Teranga waaye tamit euh, mën leen permettre ñu waajal avec une sérénité beneen match bi nga xamante ne dina am suñu diggante ak équipe bii di Burundi. fas yéene leen dëgtal tamit les notes du match côté sénégalais alors Pape Bouna caw ñëw avec un système quatre de 3 un dans les buts ñu amoon ki nga xamante ne moom mooy Edouard Mendy euh, Crépin Diatta Kalidou Koulibaly Moussa Niakhaté El Hadj Malick Diouf ñoo doon former la défense sénégalaise ci milieu de terrain bi ñu amoon la paire Idrissa Gana Gueye euh, Pape Alassane Gueye Iliman Ndiaye joué comme numéro 10 Ismaïla Sarr évolué sur le côté droit Sadio Mané joué comme excentré gauche et dans la pointe de l'attaque ñu amoon ki nga xamante ne moom mooy Nicolas Jackson concernant les notes du match Edouard Mendy se retrouve avec une note de 7,3 Crépin Kalidou Koulibaly 7,2 Moussa Niakhaté 7,2 El Hadj Malick Diouf 7,1 Idrissa Gana Gueye 6,8 Pape Alassane Gueye 7,3 Sadio Mané 6,6 Nicolas Jackson se retrouve avec une note de 6,2 ki nga xamante ne nag moom mooy Habib Diarra moom jot na am une note de 7,9 après son entrée décisive moo ko permettre mu dugal le but permettant aux Sénégalais de remporter euh, ce match waaye tamit Nicolas Jackson a cédé sa place ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Chérif Ndiaye euh, Pape Matar Sarr tamit jot na dugg si bile match après la sortie de Iliman Ndiaye donc mu nekkoon ni tamit les statistiques du match waaye tamit ñi ngi leen di wax dinañ leen indil yeneen information yi nga xamante ne dina concerner les échos de la tanière Sénégal wara a footballaat ak équipe bi di Burundi jërë ngeen jëf